ndaje bu mag bii bu am solo bii ñu def ko tey ci fii ci ker mbay mooy que dañoo bëgg li nga xam ne moom la sunu dëkk bi yellool ci li nga xam ne mooy infrastructure maam ñu fexe état bi dégg ñu ñu defal ñu ko ndax dañoo bokk ci réew mi te xam nañ ne réew mi ci ko yor jamono ji muy le président Macky Sall xam nañ ne kenn ku ne xam nañ ne ab taxawaayam ci li nga xam ne mooy euh, defar ay yoon yu baax te xam nga ne Kër Mbaye euh, depuis 1914. ba 2019 soo ko xaymaa téeméeri at la ak juróom maanaam un siècle boo xam ne teg na juróomi at booba ak léegi amul len loo xam ne euh, mën na koo teg baaraam na ni état bi moo ko fi def te xam nga nag booba léegi euh, kenn xamul ni mu toll tey lañ mës a teg suñu tànk ci doxam ñaxtu ngir jooytu loolu kon population Kéré Mbaye ak ñi nga xam ne ñoom ñooy élèves yi nga xam ne ñoo ñu wër ñu ñëpp rek dañoo maasoo ànd doon benn ngir xeex loolu nga xam ne lu ñu yitteel la te lu am solo la te itam am réew mënu koo ñàkk. ndax eh, xam nga ne Kër li fi ñëwoo ci mbooloo kenn xamul li mu toll macha allah boo xoolee élèves lu mat trois jël yoon Kéré Mbaye di jar ci yoon wu mel nii yoon woo xam ne nii ay dégg la yoon woo xam ne nii dafa am ay kàmbu yoon woo xam ne nii oto yi bu ñu daw ñaari fa ñett ñu pand oto yoo xam ne nii élèves yi ñu ngi feebar dëkk bi ñu ngi feebar ndax poussière loolu nag dafa jot tey ñu taxaw ci kanam askan wi da yoon bi boo dee xool distance bi lu gàtt gàtt la ndax ñetti kilomètre rek la ñetti kilomètre yaakaar naa loolu du dara ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tey nguur gi. ba ñu ngi laaj bu baax a baax suñu àq jooju eh, bu ñu ko defarut incha allah taala danañ eh, àggat ci vitesse supérieure ndax wax dëgg yàlla lii mooy suñ premier acte depuis ba nga xam ne Kéré Mbaye eh, judd na ba léegi ci lu mat téeméeri at ak nangam am dañoo war a ñëw si fii Kéré Mbaye ndax dindi Sëñ Fallou gi ak Kéré Mbay ñetti kilomètre la kon tutaay ñu ngi jooy ngir ñu ñëw àggale li nga xam ne mooy yoon bi yëmbal euh, dëkkandoo yi li nga xam ne mooy tracé bi yëmbal leen lépp wax dëgg yàlla loolu mooy sunu euh, mébét bi nga xam ne moo gën a bokk ci gën a rëy ci mebet kon ñu ngi leen di jégalu